mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax euh, comme ni ma leen ko junjëwoon rek dañuy continuer ci ñaareelu jataay bi ñu fas yéene ko ànd ak koo xam ne it comme ni ma waxoon ci bu njëkk bi du ko ñuy présenté euh, muy Serigne Cheikh Fall Taif euh, war a waxtaane thème bu am solo boo xam ne actualité la mën naa ne lépp ngir waajtaayu màggal gi ndax màggal gi dafa ñëw ci ci ci ci jamonoom dañoo màggal ci ci ci jamono thème bi muy waaj a waxtaane muy bu am solo kon xëy na bala may annoncé thème bi dama koy jox mu nuyoo Euh, ak ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel kon sañ Cheikh fal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. mbokk ji li ñuy déglu mbokki mbokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen ndokkeel di leen baal àq baax a baax te di leen baal rawatina ci weeru tedd yu ñu nekk ak bis bi tedd bi ak pàkk bi ñu ndokkeel ñëpp nag di ñaan ñëpp jàmm Cheikh Bada jërëjëf euh, Serigne Cheikh Fall Taïf euh, ñu bëgg a waxtaane ak moom rek benn tomb bu am solo mooy li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne moo euh, xew ci jamono ji nga xam ne ni ñu koy waxee rek bëriwul fu mu eggul ci àdduna bi te ñun nag ñu war ci waxtaan ba xam taxawaay ban lañ ci war a am ndax kat gannaaw ci réew mi la ñu nekk war nañ cee xam nan lañ ko war a dundee waaye nag lépp rek ñu teg ko ci diine ak lislaam ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci diine am euh, laaj bi ma koy njëkk laaj rek dama koy laaj ndax euh, lii nga xam ne moo xew muy coronavirus bi euh, Covid 19 sëñ Cheikh Fall boo ñu ko doon jàngatal ci dan lañ koy mën a mën a fan lañ koy mën a dugal ndax xëy na balaa la wala wala mbas la wala wabaa ci tënk bu gàtt rek bu ko defee ñu door a jàll ci yi ciy des kanam incha allah. kon noo ngi lay ndokkeel baax di la ci laaj bi. kon mu mel ni comme nañu ko laajee comme li ñu xew nii nga xam ni ci lañ toll muy jàngoro ju lëmba réew mi waaye ba bitim réew mu mel ni nag comme ni nga ko waxee nii suñ dee waxtaan ci lu mel nii ca bëgg ko teg ci base bi ñu toll faaw ñu indil ko ay cëslaay ci lislaam xam naa nag day mel ni jëmm ji comme fi ñu toll nii li ñuy dund moom mas na ko tuddee balaa ndax day mel ni bu fekkente ne dañ naan diggante wabaa wala taaxoon day mel ni ñi ñi ñi jàngatee lan mooy taaxoon ak lan mooy balaa xëy na dëgëreem dëgg dëgg dëgg wax dëgg àggut ci taaxoon mm-hmm. waaye kon ci niñ koy mën a tënki rek mooy kon ci balaa la mm-hmm. balaa nag xam nga liñ koy ni ko borom xam ne di waxee mm-hmm. maanaam mooy ab nattu maanaam balaa maanaam mooy ab nattu ki ko teg nag mooy ci ki koy nattu kon moo jox ñu naan albala ak ibtila balaa mooy li li muy tege moo xam jàngoro la mhm. moo xam ak ñàkk la mhm. moo xam faatu gu bari wala lu man a doon mhm. léegi nag ki ñu koy teg kooku loolu loolu la ñuy ibtila mel ni nag buy teg balaa ci ñaar la koy teg muy ku ko gëm ak ku ko gëmut bu fekkee da koo teg ci ku ko gëm war na ca jàngat ñaar benn bi war naa jàngat ni moom mi kon xëy na daa wàcc aw yoon suñu borom di ko jox ab yar ne ko kat yaa ngi wàcc ci yoon wi ñëwaatal léegi teg ko balaa wala mu teg ko balaa it ngir ëllëg kat am na ay euh, garaat. wala ak jéggal gum ko bëgg a jéggal tax mu teg ko ko bu dee ki ko gëmul nag moom. saa bu ko ko tegee rek day mel ne ab lancement lay doon. maanaa xamal ko ne ko yow kat comme da ngaa wàcc aw yoon. maanaam kon maa ngi lay lancement lii di la bàyyi xel ni boo liggéey boo dikkee comme li nga fi fekk kon li ci war a jàngate mooy lii ñuy dund nii. maa ni koy mën a tënkee mooy balaa la. ndax li tax mooy ni ko euh, borom xam-xam di wax ni taaxoon. yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ci joxoon misaal waxoon ni taaxoon diis na diis goog maanaam du du dugg madina mhm. ca taaxoon ni ñu ko waxee boo de bu doon mooma rek day bari ndax dañuy wax taaxoon bu doon mooma lu mu néew néew néew néew chaque jour li muy faat day ëpp ay junni junni mhm. euh, ci ci comme ci comme bi ñu nekk léegi nag bu fekkee da ngaa dem ci ci yeneen place yi nag na mën na faa lu mel noonu ndax ndax ni ñu koy déggee waaye ñun bu fekkente ne ci bari bi ñu la moom duñ dégg ni lii maanaa taaxoon la mhm. waaye balaa lañ koy lañ koy mën a joxe balaa lañ koy mën a joxe waaye suñ baleet bu ko defee mhm. jullit yi nag ñu bàyyi xel ni mhm. xëy na suñ borom bu tegee dara ab jaam la ci jaam ba war a njëkk jàngat mooy suñu borom tegu ko ko rek ci zéro waaw déedéet déedéet boo ko tegee am lu tax kon jullit bi li ci war a njëkk mooy bu la suñu borom tegee balaa teg na la ko ngir nattu la maanaa xam ne da ngaa wàcce aw yoon mu ni lay xam ne dil si waatal ci yoon bi kon war nga caa jàngane su ma tegee balaa bii kat bu cee gën damay toog rek waaye dama war a jàngal ndax man dama wàcc aw yoon kon naa ñëwaat wala ma gis nit ñi su ma ko tegee am na ab yool bu ma bu ma bëgg jox ëllëg mu jàngate ni nag suñ borom du teg mukk mukk mukk am natt ci zéro maa boo ko tegee rek am na ab yool kon bu fekkente ni teg na la ko dañ naan albala maay mooy li ñuy tege mhm. al ibtilaa nag mooy kiñ ko teg ndax nangu na ko mhm. bu fekkee nangu na ko waaw waaw nangu na ni suñu borom moo ko teg dogal bii mu muñ ko mm. suñu borom dana ko teggee ca dana ko fay ëllëg bu fekkee nangu ko nag du tee maa dogal ba nefa balaa ba nefa ca ca boobaa ca ca ca du ak ak pay kon buñ ko déggee noonu mm-hmm. faaw ñu gis ni lii ñuy dund dañuy nangu ni lii suñu borom moo ñu ko teg mm-hmm. loolu mooy tax ëllëg dana ko teggi ba pare fay ñu waaye buñ gisee ni dañu ko teg ci hasard rek wala nanguwuñ ko wala ñuy deltu gannaaw kon day métti bi moo fi nekk. mi mhm. ab yool du fi nekk. macha allah. Mhm. Euh, jërëjëf Serigne Cheikh Fall. Euh, waaye ñu gis ni euh, du lu bees xëy na ci àdduna te ñun dañoo am ay royukaay yu mel ne ku tedd ki Cheikhul Khadim ak sangam bu tedd ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ne daana am ñu bëggoon a xam yan jàngale la ci lañ ci joxe woon ñoom ndax gis nañu ne toll na ci jamono joo xam ne léegi bari na lool commentaire yi kenn ku ne ak ni mu koy gisee waaye ñun gannaaw ñooñu ñooy suñuy royukaay jàpp naa ne bu ñu dellu siwaatee ci jamono yañ daan am lu mel ni mosaan am taxawaay yan lañ daan am. day mel ni lii du gan. Mhm. lu mel nii lu fi yàgg la waaye dafa mel ni nag tey bu fekkonte ni tey yan yan taxawaay lañ daan am. Mhm. man man maa wax ni rek tey fekkonte ni sax damay anticiper waaye dama naan taxawaay yi nga xam ne tey mhm. moom la julli wala kilifa yi di di di joxe day mel ne jamono yooyu it nag amutoon yeneen taxawaay xam naa danañ si ñëw ndax dañuy xam dañuy wax ci ci taarix lii ñu ngi ko njëkk a gisee ci gàddaay bi nga xam ni yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay woon na ko jógee jógee Makka ñëw Madina wax nañu bi mu fa ñëwee booba jàngoro juy wàlle amoon na ca la wax ca la yonent bi waxoon nag ni lii xew nii du taaxoon ndax ne woon na taaxoon du dugg Madina waaw kay kon moo tax kon la xewoon la muy metti métti kon balaa rek lañ koy tudde wax nañ jamono boobu ba mu dikkee sa ma saxaaba yi bari na ci ñooñu jàppoon na leen am na si ñaari ñu ñu ñu gën a siiw ku mel ni Aboubacarine ku mel nañ ni jàngoro ya jàppoon na leen ba bi mu amee lam lam digle woon mooy nañ leen génn maanaam nañ leen ber kon day mel ni suñ ko dee dégg léegi jàngoro dal nit ñu ber ko doonul gan waaw baatu quarantaine mm-hmm. kon manaa xëy na ni ñu koy utiliser ni ak ni ñu koy tuddee mooy wute waaye jamono bi yonte dafa xoon ñi jàngoro ji dal mm-hmm. nañ leen génne mm-hmm. pourtant amoon na lu ñu doon faje mais jamono boobu xay na euh, maanaam faj ni mu avancé boobu amutoon boo wax nañu lu mel ni meew wala am sawam gil sawam gileem ak xëy mel noonu loolu lañ doon jox maa ñim daloon ba yàlla dogal ñu tane door a ñëwaat ci biir nga xam ni kon loola mooy bi bi nga xam ni ma donte yu bari la waaye ma waaye ma seen boobu waaye dafa mel ni xilaaf ak Seydina Omar ñoo ñu koy wax atam amal majaa ne booba yàlla dafa dogal Seydina Omar booba moo ubbi Palestine yàlla dogal booba gàddaay gi am na fukki at ak juróom-ñett Omar bi na ay jàmbaar yu fa yebaloon nga xam ne ñoom ñoo ko fa nekkal wax nañu ñoo ne jàngar ja maanaam jàngoro ji feeñoon na fa mais ba mu fi feeñee la ka ka ko jiite woon wax daa wax ne ñëpp ñi nga xam ne jàngoro ji da leen a dal nañ leen ber ba buñ jaxasoog nit ñi ngeen ngeen ñu bañ leen wàll. wax nañ sax ka nga xam ne moo ko jiite woon di Abu Omar moom jàngoro ja da ko dafa metti woon ba Seydina Omar sax da ko doon wax naan téemoo ñëw fekk si ko. moo moom nag mu jëfandikoo xadis ba nga xam ne moom lañ ci waxoon ni ko yoon bi dafa waxoon ni ku ne ci barab. jàngoro fekk la fa. Mhm. nga toog fa muñ ko ba yàlla dogal jàngoro ji jeex. Mhm. wala nga faatu ca suñu borom da lay kon day mel ni dañoo ne bu nit nekkee ci barab. Mhm. ba jàngoro fekk ko fa sax lay lay ak njulite mooy mu toog fa. maanaam ba jàngoro ja euh, jàll. boobu kon dañoo yox ni Abu Ubayda Amir ibnu Jaraax boobu moo jiite woon maanaam moo fa loon Umar moom moomu ak ñeneen ñu baree bari jàngoro ja dal na leen ba ñoom ci lañ faatu nga xam ne biñ faatoo Seydina Omar kan kam fa tegaat dafa waxoon nag ñi nga xam ne dañoo faatu suñu leen dencee ñi nga xam ne bi yàlla dafa dogal jàngoro ji da leen a dal mhm. kon nañ leen ber ba buñ joxasoog nit ñi kon foofu toujours li bëgg wax rek mooy mhm. jàngoro am ñu ber ñam ñu ber ñam dal ngir bañ ñu wàll ñu wàll ñi si des loolu kon du gan mhm. mooy yi ñu amoon doon ko jëfandikoo muy pratiquement lañ ci amoon ña koy def yeneen mooy yi nag xëy na su ma ci dikkee daanaka mën ngaa wax ni bu jàngoro masaan am lañ daan def ci jamono yonte bi lañ daan def ci jamono saxaaba yi ba ci jamono Cheikhul Khadim na nga xam ne noonu lañ ko doon jañee loolu day nekk benn bind boo xam ne bii rek ñoom ñëpp dañ koy bokk nga xam ne kon yooyu ñaar la ci noonu nga ko mën a wàccee ba ni ngay ñëwee ci Cheikhul Khadim incha allah waaw mel na ne dañuy jàll rek ci ci ci ci ci ku tedd ki comme ni ko waxee ndax ku ne xam na ne ñun xëy na moo ñu gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam te it xëy na euh, bi mu fi jógee yàggewul noonu te jamono mel na ne lu mel nii amoon na waaw moom yan taxawaay la ci doon def dañuy wax ni day mel ni xëy na moom ci ay jamonoom du ma ne yi ci am waaye yi nga xam ne bokk na nañ ci gën a fés mm-hmm. yooyu xamaa du sori 1895 96 boobu am na mi fekk ko fi mm-hmm. xam ne boobu la génnoon waaw bi bi demee ci géej gi mm-hmm. booba li ñuy wax mbas maanaam mbas la ko mën a tuddee amoon na waaye boobu ba amee ñi nga xam ne ñoo yor responsable maanaam yoon wi ku mel ni maam Thierno dafa mel ni nga xam ne yoroon na njabaru Seexul Xadim booba la nga xam ne moom la jamono laajoon defoon na ko maanaam wut maanaam lañ naan wut saafara yi ñu xam te dañ si ñëw waaye ak la nga xam ne moo ci toppit mooy wut wutal leen foo xam ne danañ fa mën a nekk ba xëy na jàngoo ji du leen aar mhm. ndax dafa mel ni at mooma ci njabaru seexam ci boppam mhm. dara na ñooñu wàcc nañ waaye mel ni si jàngoo ji ci lañ wàcc ba ci ñeneen ñu bokk ci seex yoonu murid yi ñu baree baree bari mhm. maanaam nga xam ni booba la faatu kenn xamul mu toll ci booba day mel ni jàngat jàngoro ji la woon booba nag amuñu woon nenn ci nuñ ko mën a fajee ci saayir lu weesu taal ay nekk ak béro maa ñim dal ñu ber leen ak fañ nekkoon ñu toxoo fa taal ko ak yu mel noonu maa ci jamono saayir ak di diwoo ay dóom ak yu mel noonu daanaka boobu bu doon ci saayir man nga wax ne noonu rek lañ ko doon mën a faje ba sax wax ni boobu xëy na mooy benn bi waaye am na boo xam ne bi it xam naa du sori 1920 21 boo xam ne it maanaam boobu moom fekk na fekk na fa sëñ bi fii ci njaarim waaw fekk maanaam fekk na ko fi booba day wax ne sax ci jëmmi yi gi maanaam wax nañ ci yoonu murit maanaam ab seex boo xam si ku siiw la comme ku ko tuddoon des na ko xam mhm. am na dëkk bu mu dëkk nga xam ne feneen ab dëkk ma mhm. pour dëkk ba la ko sanc maanaam yàlla fa ko moom jàngoo ci doo koo daloon moom ñu ber ko fa mu ne fa mhm. far ba ne ba wér nag ne fa far mbooloom fekk fa nga xam ne kon dafa mel ni ber googu ñu ko beroon tax na sax ñu sanc ab dëkk kon ba tey foofu li muy dikkaat rek mooy nañ ko doon toppe ci jamono yonent bi alayhi salaam nañ ko doon saafara ba jamono Seexul Xadim it amuñu benn saafara bu dut képp ku jàngoro dal ñu jëm laa faj ci lañ man ci saayir ber la ngir nga bañ a ngir nga bañ a kon loolu moom moo continuer ba ni mu ñëwee ci jamono Cheikh Moustapha it ndax boo ko jamono Cheikh Khadim it dañ mel ni Cheikh Moustapha it lu mel noonu na ko fi waaye moom it euh, wi ak doxin wi wenn la ndax ci islaam li dañ koy delloo ci lislaam mm-hmm. ginnaaw jamono Yonent bi alayhi salaam ku masaan dal li ñuy def mooy ber la ak wutal la faj mu mën a am ci saayir loolu moo jaar ci ba ci Cheikh Khadim kon dañuy mel ni lii ñu gis ni tey jii moom la ñuy saafara jàngoro jii ñuy gis nii mel na ni doon lu bees mooy comme dal ñu ber la ngir nga bañ a baal ñu ci des waaye li ñu mën na koo saafara ñu la koy jox. macha allah mhm. euh, jërëjëf Serigne Cheikh Fall. Euh, jërëjëf Serigne Cheikh Fall ci leeral yu am solo yooyu euh, waaye xëy na comme ni ñu ko waxee rek du lu bees te ñam fi daan fekk suñu kilifa yooyu ñu tudd daan nañ def ay taxawaay léegi ci jamono ji ndax dañ leen a war a diglu ñoom wala docteur yi la ñu war a diglu ndax dafa bari murid yoo xam ne sama classe gi daanaka fii ne bu docteur yi waxee duñ ko kii waaye bu sëñ bi waxee rek ñu ne gannaaw sëñ bi wax la war a am ngir mucc ci ji ndax euh, mel na ne bu fekkente ne topp nañ li nga xam ne moom la ñuy digal mën naa am saafara dana am foofu moom li ci nekk mooy ñoom ñëpp la ñu a déglu mm-hmm. ndax li alxuraan di naan mm-hmm. day mel ni day mel ni da ciy duggaat ndax ginnaaw yàlla dogal na ñoom la suñu borom dogal ñu am xam-xam boobu di ci di ci yëngu ci ci ñëpp nangul leen ko nga xam ne fi ne tey ku tawat mhm. da nga dem hôpital kon tey ki nga xam si tey bu tawatee da ngay dem jébal ko sa bopp mhm. amatoo bu jàngoro feeñee donte nag jàngoro feeñ na xëy na am ngi moom kenn werante wu ko am gi kenn ko xëy na am na yeneen ak yeneen nag loolu moom ci dugg mhm. waaye am gi moom kenn werante wu ko ndax nag dafa am loo xam si ginnaaw yooyu yëpp moom duñ ci dugg waaye ginnaaw tey ñoom la fi suñu teg ci ñu am xam-xam boobu ci wàllu saayir kon ala kulli al mu ne su loolu ñàkk a déglu waaye ñi nga xam ñooy kilifay diin it ñoom it dafa am benn faana boo xam ne bit kenn mënuñu ci ñàkk a déglu ndax ñaar yooyu ñooy ànd ñaar yooyu ñooy ànd docteur yi ñu ci saayir nga di ko def sa kem kattan waaye yeneen yi nga xam ne nag nag ay arme nga xam ne moom la kilifa yi moom la kilifa di di joxe ndax ñaar ba tey lañ ko doon rek benn bi mooy faju benn bi mooy ñaan mhm. ak ci ayu kon dama jamono bii ñaan ñëpp la ñu war a déglu les docteurs yi moom nañ leen ko jox waaye leen li nga xam ne moom la kilifa yi moom it ñu jox leen ko bu ñu woon ko joxee jàpp nañu saafara mën na am. macha allah mu mel ne kon xëy na loolu lañ bëggoon a yaatal euh, ndax ku ne gis na ne euh, ñaari côté yëpp daanaka mën naa ne am nañ seen ndigal ndax bu dee euh, fii Touba xalif général di Mouride joxe na ci ndigal waaye da koy takk moom ci boppam takk masque ak li nga xam ne moom la waa kër docteur diglu sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne xëy na moo woote màggal gi moom it gis nañu bis bi muy woote ni mu taxawee woon bañ ko dafa takk masque waaye soñu ñëpp ngir ñu takk masque xëy na kàddu yooyu jeexale sëñ Cheikh Fall ak looy soññ ñi nga xam ne xëy na euh, ñoo fas yéene ñëw ci bis bi. maa damay jàpp ni kon foofu liñ ci li ñu war a njëkk bàyyi xel mooy mm-hmm. xam nga comme dañoo wax ni maanaam docteur yi moom am nañ saafara mm-hmm. waaye ñu bàyyi xel nit ni mm-hmm. maanaam balaa mii saa bu dikkee am na lu tax mu dikk maanaam saa bu jàngo saa balaa amee rek nit ñi nañ bàyyi xel ni ak mooy am na ak wàcc yoon am na ak leneen ak leneen am na kon dafa bokk ci la nga xam ne lañ war a njëkk a lañ war a njëkk a utiliser bu ba balaa ñu jullit ñi mm-hmm. moo ñu delluwaat suñ borom mm-hmm. moo ñu tuubaat dellu suñ borom waaye moo ñu toroxluwaat mm-hmm. waaye moo ñu ñaan ko waaye moo ñu saraxe moo ñu tuub yooyu day maa day arme yi nga xam ni mag ñi dañ ko moom lañ daan utiliser ngir delloo balaa balaa saa bu dikkee arme yi nga xam ne moo koy delloo ci bàttin mooy ñaan mooy toroxlu dellu sa borom di saraxe ak yu mel noonu kon yooyu jëfandikoo ko ba noppi maanaam même donte dañuy jëfandikoo li ñu ko docteur digle waaye yii moom mënu su ko ñàkk a mënu su ko ñàkk jëfandikoo ndax buñ bëggee mu dellu waaw lool lool loolu moo koy delloo sëriñ bi mi ngi ci bay waaram ndax njàngum alxuraan bi ku gis na ne taxawul ci fan mhm. lépp ngir waajal màggal waaye fexe ba ñaan su borom tawat di waa mhm. waaw xam nga loolu moom mel na ni wax dëgg nag ñi ngi ñi ngi gis résultat bi mhm. bu wér a wér léegi nag li nga xam ne tey moom la ñuy wax nga xam ne tey ci contexte bii ñu toll muy màggal gi dañuy jàpp ni gàddaay ngir lislaam dara gën koo foor nit gàddaay ngir islam jàngoro dal ko ñu ber ko kon loolu amul ko gën a fort Seydina Omar bi mu dem Palestine di ko ubbi ngir diine jàngoro dal leen fa ñu ber leen di faju dara gën a koo kon dañuy jàpp tey bu fekkoon dañ naan am na lu gën a fort ba tax tey bu lu jàngoro dal la wala jàngoro xew nga ne damay defee nu ma neex l'islam moo gën a fort gàddaay gën a foor ngir diine ubbi dëkk moo gën a fort ngir diine Seex Xaadim mii liggéey bi ñu doon liggéey bi ñu doon liggéey yonte bi moo gën a foor mais saa bu lu lu mel ni masaan am taxawaay yii lañ lañ cay taxaw kon bu ñëwee ba li ba li répété uh-huh. la gën moo ñu ñu taxaw comme taxaw yooyu ca ku mel ni Cheikh Amadou Mountakha nañ bàyyi xel ni comme moom exemple la ci ndax biñ ñee am na lim njëkk def mooy uh-huh. dafa làmb li ñu jàpp ni am koom la mën a dimbali mën a kër docteur yi uh-huh. waaye yëmu ci ma joxe ci ndigal waaye ba noppi da ko masque ñu bari nag tey bu fekkee dañuy gis ma takk ma takk masque ndax dañuy jàpp ne waaye xëy na ndax daa mu baatin wàññiwu dara ci li mu doon xalifa général des mourides wàññiwu dara ci baatin bi mu war a am wàññiwu dara ci saytu saytu bi mu war a saytu yoon wi ba ci borom pàkk bii di si Amadou Mokhtar moom it ñëpp xam ne taxawaay boole ci am taxawaay boole moom it li muy def nii mooy da koo da koo teg ci ak murid ak murid waaye da koo teg ci lislaam parce que cëslaay yi ñu wax nii kenn mënu topp ba génn lu gën a kawe lii moom it kon masque yi muy takk ak li mu digle kenn ko ne na nga ci war a def téewul muy xalifa Cheikh Moustapha téewut it lim yor maanaam mu yor ko comme ñun li ñu ci war a jànge mooy topp suñu digali kilifa yi awalan waaye kër docteur yi li nga xam ne dañ koo moom ñu jox leen ko ngir nag mën a mucc ca ñu bàyyi xel ne bakkan mhm. wattu bakkan farata la amaloon nag ba fekkente ni nit ñi dañ koo wax mhm. gis lii kat xëy na moo ko ko def man caa mucc mhm. ba noppi nga ko rek def la la neex kon day mel sa bakkan bi maanaam yaa ngi koy sàggane te sàmm sa bakkan nag day mel ni farata la ba Bada jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax Euh, di sant bu baax mbokk yi nga xam ne yéen a ñu doon bàyyi xel euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lañ doon def euh, di fàttali rek ne sëriñ bi noonu la ko wootee wax na ne mbooleem koo xam ne yaa ngi ñëw ci bés bi na nga sàmmonteeg ndigal yi kër docteur digle te sëñ Cheikh Fall ñëw na ci léegi mel na ne ndigal yooyu wuutewul ak ndigal yi lislaam ndax répété na ñëwul benn yoon ci diine lislaam kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax na mu ko waxee mbooleem gan ku ñëw toog ca bërëb ba xam ne fa ñu tarale ko foofa waaye mu dundal bis bi ci bërëb boobu mu nekk ci alxuraan ak xasida ak ni nga xam ne noonu la ko euh, mbokk yi doon junje kon mbokki ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di taxawlu foofu ba ci yeneen jataay incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa